Jene getelu sen sen Rumi Venkat TV. jaajëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak topp bi nga xamante ne rek nañu koy topp ci site internet bi di réew mi 24 TV li gën fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy du rek ab communiqué bi nga xamante ne rek groupe Futurs Médias daal dina koy fësal nag niki démb yem ak ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru août ci atum 2024 bu ñu sukkandikoo nag ci kàddu yi nga xamante ne rek daal koy fësal te kii ko fësal di Sidati Thioune ci ab conte TikTok am nag ma ngay daal di xam ne rek que ne daal dañu daal di rek dakkal nag seen su ñaan daan antenne ba li nga xamante ne rek moom mooy euh, nouvel ordre ni ki lëndi nag la yëfi door eh, moo ko ñaar fekki fan juróom benn ci weeru août ci atum 2024 jusqu'à nouvel ordre mu nekk nag xamante ne rek euh, daal dinañu koy gis nag ci signature directeur bu RFM ci intérim mu Babacar euh, kii di Babacar Fall mu nekk nag xibaar bi nga xamante ne rek kii di Sidath Thioune moom moo ko daal di fësal bu ñu jógee ko foofu nag dañuy àddu rek wax ci mbirum faat bi nga xamante ne moom la ñu faat kii di Aziz Dabala Ndeye Ndiaye Tawzène daal dinay génn nag def sorte nee na ndax moom ci jëmee boppam nag musul te lii di ab cant ba ci wàllum xibaar bu ñu jógee foofu dañuy àddu rek wax ci coowal suuf li nga xamante ne jamono ji moom moo di topp Farba Ngom eh, fi nga xamante ne moom mooy ca wetu école des officiers de la gendarmerie nationale di Eogène 1400 mètres carrés nag eh, ci xayma tollu ci 1 de francs CFA yi nga xamante ne rek kii di Macky Sall joxoon na ko Farba nekk a bi nga xamantene rek jagleel nañ ko Farba Ngom ne nañ nag parcelles yi numéro 196 197 117 118 119 120 ba 121 mu nekk nak ay zone yo xamantene ne zone stratégie la yu nekk nak ci diwanu cité avion ak fu soriwul lool fi nga xamantene rek mom mooy ci aéroport Léopold Sédar Senghor ne nañu nag benn mètre carré bu nekk rek ñu ko doon jaay du tollu ci 100 150 millions eh, ki nga xamantene rek mom mo ancien directeur général bu police nationale bu parlementaire ak ñeneeni membres membres yu bokku ci alliance pour la république nag jot nañoo bénéficié wu rek ci yooyu le titres fonciers kii di Mahmoud Saleh nak ne nañ moom ci jëmee boppam rek jox nañ ko ñaari terrain yoo xam ne benn bu ci nekk rek deux cent une mètre carré la nekk ci wetu aéroport Léopold Sédar Senghor bu ñu sukkandikoo rek ci journal bi di yor yor ba tey ci wàllum xibaar bu ñu jógee foofu dañuy àddu rek wax ci jëwriñ bu ñu dénk nag karange biit mi daal dinay weddi rek xibaar bi nga xamante ne rek moom moo nekk di circuler que ne nag dinañ fas yéene amal ab couvre feu ci ab communiqué rek ko niki tey jii moom bu ñu dénk wàllum karange biir réew mi nag la mu dal di xam ne rek moo di rumeur yooyu di circuler nag ci réseaux sociaux yi ñeel ab couvre feu bu ñu sukkandikoo ci boobu boobu li communiqué nañ boobu li xibaar nag du dëgg tey du dëgg ëllëg dara amu ca moom ministre bi nag ma ngay daal di rassurer askan wi rawatina nag citoyen yi ñi nga xamante ne rek jamono ji eh, que ne loolu ay fausse nouvelle la waaye nag lépp loo xamante ne rek dal nañu koy cay def ci seen coobare bopp rek lañ ko waxee ak seen titange moo waral rek ne lañ daal genre information yu nu mel nag nañu koy faral rek di signaler autorité ci yeneen jëmu bopp ñi ngay sàkku rek ñu gën a bàyyi xel bu baax nag te bañ a gëm yenn rumeur yi nga xamante rek dara du ci ëllëg wala nag laata